ak limu wara war doxal ci Sénégal sénégalais xam nañ ko donte donte ndeysaan man bokk na ci ñi bu len RTS biñu jox Pape upgrade le manam. augmentation la dans sa vie parce que papa Alé était déjà DG de sa télévision hein. voilà DG ou Dakar matin la won ba paré donc pour man dañ ko ne rek bàyyil sa télé nga ñëw servir population sénégalaise bi donc maanaam dafa changer rek mais defe naa xanaa ñi xam war nañoo xam ne lii du upgrade maanaam du yokkute donc il faut loolu ngeen bàyyi ko xel beneen pàcc bi pàcc bi ma ci intéressé sax mooy bëgguma pàcc bi doon pàcc personne mais c'est plutôt ce nouveau gouvernement du Sénégal. Vous avez le soutien, le respect et l'encouragement de 100% presque des bons Sénégalais. 100%. vous Guinéens, fi ngeen Fofula, bu masla bulen bu leen ci bolé ben xel ñaar fi ngeen tek sen tank fofu la parce que satti bañuy ba ñuy xamoon nañ ne suuf si ñuy sàcc moomuñu ko bañuy ñuy alal bi di jënde ay suuf aussi xamoon nañ ne alal bi ñuy sàcc ko donc ku dem jënd ci suuf yoy walla ko xamne jël nga nga tabax ci suuf yoyu te mu leer la ne yow ci tabax nanguwaat leen ko yépp ngeen delloowaat sénégalais yi seen dignité parce que yéen liñ leen falee dignité la dignité tax ñu fal leen ndax suñu président de la république ah man de gisaguma ci histoire Afrique président bu def déclaration de patrimoine mu taxaw ne àdduna bi yépp man presque amee naa boru quarante millions bu ma juumul 30 à 40 millions pour te dire seulement muy ndax position ba mu na fa ay milliards man am ci terrain je suis domaine yi nga dama de service bi au ministère Nous sommes... di à Dakar Madame lotissement yi Madame, yi ñu arrêté yi nga xamné lepp dañ ko arrêté dañu arrêté lotissé bi arrêté arrêté arrêté Bawo à Dakar hangar des pèlerins à Dakar Oegin à Dakar Oegin 1 et 2 Terme Sud à Dakar arrêté nañ ko recasement à Dakar recasement 2 arrêté nous ko cité batterie arrêté nous Ego Boss arrêté nous ko arrêtez arrêté département de Dakar Littoral corniche bi arrêté le plan d'urbanisme de détail de Guédiawaye arrêté nous et le plan d'urbanisme de détails de Malika arrêté nous

justis bi dina dox fi mu toll nii ndax lii ñu nekkee nii justice daf ci bokk bokk naa ci sénégalais yoo xam ne luubal alal sénégalais yi dina jeex te bokk naa ci sénégalais yoo xam ne di ngeen ñu delloowaat suñu dignité loolu laa gëm te gëm naa ne incha allahu rabbi yoon bii ngeen jël nii boo leen ko wàccul yoon bii mooy yoon bu baax bi ginnaaw loolu nag dafa am lo xamne dañ koy leral comme niñ ko daan defé dégg naa euh, ñu ngi may yónnee benn message mais dinaa ko figure out après loolu du doon message bu may euh, leeral ci kaw dinaa ko figure out ba pare euh, bu ma ci amee lu ma leer après ma ñëw ma indil leen voilà parce que dafa ñëw ni en temps réel léegi dama bëgg indi ay leral ci mbirum suuf boo xam ne ñu ngi ko am foofu ci Dakar n'est-ce pas euh, dama bëgg ngeen bàyyi xel waa ji ki kii mooy Djibi Diallo Djibi Diallo c'est le sous-préfet de Dakar gis ngeen waa ji kii moo doon barricade kat barricade katu Ousmane Sonko bi gën a mag ci Sénégal moo doon waa ji Djibi Diallo saa kii moo bokkoon kii ñoom ñoo doon def lépp loo xam ne voici moom ak euh, kii nga xam ne euh, encore ma ñëwaat le commissaire Janko Mballo bokkoon nañu ci defkatu teef yi gën a mag ci mbirum Ousmane Sonko waaye na comme niñ koy waxee mbir mi nu duñ ko jëlee personnel c'est pas une chose personnelle mais bu ñu gisee loo xam ne lu dul naka si noonu la dañuy ñëw wax ko Djibi jàllo dama bëgg ma jox leen Kati Ndiaye Diallo bàyyi leen tur xel tur bii Kati Ndiaye Diallo mooy soxna Djibi Diallo mi ngi nii ma won leen ko Kati Ndiaye xamee leen ndaw si gis ngeen Kati Ndiaye Diallo bii mooy soxnawu Djibi jàllo dama bëgg ngeen bàyyi xel tur bi Kati Ndiaye jàllo mi ngi liggéeyee ministère de l'urbanisme li mu yor ci terrain kenn xamul lu mu toll damay laaj nag pour sénégalais yi ngeen indil ñu ay leeral ci bépp terrain boo xam ne moom Kati Ndiaye Diallo mii moom na ko parce que ci lu ñu jot ci weyu béy am na yenn yoo xam ne ci turu doomam ci turu ay doomu jiit la Djibi jàllo maanaam ay doomu moom Kati Ndiaye Diallo la ko def ak yeneen ak yeneen ak yeneen dama ne bayilam leen ndey Fatou Dernis c'est le nom de sa fille et Amadou Sow et Pape Gorgui Sow les noms respectifs de ses demi-frères ay demi-frères ay demi-frères ay domam jël na suuf su bari dama le gouvernement Sénégal bi tamit ngeen bay xel parce que xamna né amna une protection bo leen defal lanceur d'alerte yi ci yenn société yi xam naa ne lanceur d'alerte yi nekk ci yenn sociétés yi euh, yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye xam leen ne quatre-vingt pour cent de ces grands am na ay société yoo xam ne ñoom fa la ñu dugal seen xaalis société yooyu ñoo leen di représenté ci Sénégal mu nekk sax ay société étrangère yoo xam ne ay société étrangère lañu yoo xam ne da nga yaakaar ne dañu ñëw Sénégal rek di investir mais xam nga lan la ñuy indi Sénégal di ko investir alalu sénégalais sàcc yi la ñu jël ñu dem dugal ko ci société yooyu société yi ñëwaat biir Sénégal di ko investir ci ci pour nit ñooñu mais ci turu société bi donc bàyyi leen loolu xel boo leen audité société yi topp leen trasu société yi ci boppam ci réew respective yi ñu jóge yi ñu fay fay boo leen toppee recordu impôt yi di ngeen xam exactement lan mooy seen origine xaalis parce que bari na ay société yoo leen di gis yuy ñëw Sénégal di investir c'est parce que sàccu sénégalais yi gën a mag ci Sénégal ñoo jël seen xaalis dugal ko ci société yooyu ba pare ñëwaat di leen jaay ay terrain ci njëg yu yomb xam nga la président Ousmane Sonko waxoon nako fi mu ne tey boo xoolee ku melni Sonatel sax tay Sonatel wala yenen société yo xamne tay yu bari nenañu France ko mom waye xam ngeen kan mo ci nek les plus grands investisseurs de ces sociétés c'est des Sénégalais avec des prête-noms ay ministre ngi ci ay député ngi ci ay yenen nit ak yenen nit sen alal mi ngi làqu ci ginnaw société française yooyu donc bàyyi leen xel pour man sama xalaatu bopp lay wax te xam naa ne gouvernement bu respectable bu respectueux bi mi ngi koy def arrêté leen bépp transport suñu ressources naturelles yi parce que yooyu tamit jot nañ ci ay information ne ba léegi gaa yaa ngi continuer avion yaa ngi continuer décoller Kédougou te danger bi ci nekk pour ma wax leen ko mooy soo leen arrêté wul hémorragie bi dina yegg de telle sorte que pour réparer waat ko day garaaw trop day metti donc pour man fermé tëj len lépp société yep ngeen n'elen gouvernement bu bees model, parce que gouvernement bi fi nekkoon dafa créer ay problème yo khamne, il faut ñu wat ko ngeen arrêté lep, ba audit yi mat ba contrat yi ngeen wat ko bu boobaa société yi continuer sen ligue, parce que réew yu mag yep non noonu la ñuy def réew yu mag yi lépp lu suspecté dañ koy arrêté ba al am ci après ñu continuer waaye dama bëgg rek ngeen xamné ok voilà donc ñu né il faut ngeen xamné Jack Bawo Elias Djibi Diallo le sous-préfet moy bandi bi soutenu avoir remis la convocation de Sonko alors que c'est faux moy sous-préfet il a servi à Tamba Saint-Louis Thiès et Dakar plusieurs terrains partout où il a servi sont au nom de ses enfants, de sa femme ou des demi-frères de sa femme Kati Diallo Bailen Lolochel. sous-préfet Bobo Djibi Diallo moi sàcc bi gën mag Sénégal servir Tamba Kunda servir dans Saint-Louis servir Thiès nous servir Dakar donc moi nit ñooñu nga nous ne ñoo à tout prix Ousmane Sonko du jël parce que Ousmane Sonko su jëlee réew ñoom seen àdduna ci boppam mooy freiné donc gouvernement Sénégal ñu ñu attirer seen attention ci loolu waa ji euh, euh, waa ji Jibi Diallo muy jëkkëru Khady Ndiaye Diallo bàyyi leen ko xel bu baax Kati Ndiaye Diallo te xam ne bokk na ci sàcc yi gën a mag ci Sénégal xool leen ay terrain am incha allahu rabbi xool leen ay terrain am delluwaat leen ngeen xool ay terrain am xool ay demi freru jabaram xool ay doomu jiit leen ndax Sénégal ñoom tey bébé yi sax bébé yi man am na naa ci ñoo xam ne xam naa leen seeni ay bébé bébé yoo xam ne juddu nañu démb terrain yi ci turu bébé yooyu lañ ko def donc bàyyi leen loolu xel bébé Sénégal yëpp il possède des terrains des bébés bébé yi juddu démb Sénégal sax am nañu terrain ci seen tur parce que sàcc yi gën a mag ñoom yaakaar nañ ne boobu beneen forme nëbbatu la donc dañuy jël terrain yi ne may nañ ko bébé bi may nañ ko bébé balé, may nañ ko jeeg bi may nañ ko kële lépp sàcc la donc bàyyi leen loolu xel s'il vous plaît ngeen xamné bari na ci terrain yi société étrangère yo xamné dañuy ñëw ci turu ay ay ay autorité dañuy ñëw ñom ci sen tur waaye ay autorité sénégalais ñoo sàcc ay milliards duggal ko ci société yoyu société delu wat ñëw investir Sénégal donc il les donne tous les avantages xam ngeen limay wax moy tay nga sàcc cinq 500 milliards Sénégal nga dem joxiko ben société bu tudd euh, les TIX bu nekk Amérique TIX bu bu nekk Amérique ñëwaat Sénégal investir yow nga jox TIX bu joggé Amérique nga jox ko terrain yi gën a mag ci Sénégal yi gën a placé te fekk yow lay investiral donc bàyyi leen loolu xel nii lañ ñu ko joxe ay information yu leer donc bàyyi leen loolu xel société yu bari ñu ngi ñëw Sénégal di investir ay xaalisu sénégalais lañ ci def yu dul jeex ay milliards sénégalais donc fexe leen ngeen auditer leen boo leen leen auditer topp seen record comme ni ma leen ko waxee li ñuy ne tax record sénégalais yu xarañ nag la ñu am nag ci àdduna bi bàyyi leen loolu xel on a des sénégalais partout dans le monde qui sont très forts donc boo leen leen toppee di leen déglu rek incha allahu rabbi tous les choses vont tomber da all all the dominoes are gonna fall in place maanaam tous les dominos vont tomber sur les propres places ngeen bàyyi loolu xel.